ci loo nekk. waaw baa ngi rek toog. fu fataay alfi bi toll. ah ah fataay xaaral ma xoolal la xaaral ma jóg wala alfi indil ma ko parce que mënu maa jóg fii alfi indil ma fataay bi Mohamed yaa bëgg fataay. surtout bu fanaan bi. <laughs> bu fanaan bu dijji bu dëll bi wala bu sew bi. noon na fanaan yow bu la gënal 3D bi. na fanaan na fanaan rek. na fanaan waaw. waaye fataay 3D dijji duuf dëll. <laughs> day gën. waaw fataay baa ngi waaye bii fanaanul bu bees te tàng la de. <laughs> Mohamed. waaw bees na tàng na. ñam nga ko. <laughs> déet ñamagu ma ko nag. <laughs> waaw ñamal te wax ma. Mohamed. pa puus ma gaaw. bii tàng na jër de. fataay bi duuf na tàng na jër. wuyu ma. ah waaw ayca bu desee rek nga ñamal ma ci. waa jeex na. ah jeex na. wuyu ma. léegi xam nga nu ma lay demee la dama lay doon nga tàgg ko ci mbuus. fanaana fanaanoo ko. waaw kay jaajëf. waaw boo boo boo ci baax nag. wuyu ma. wuyu ah bàyyil ma ba max la rek. yaa ci des da ngaa bëgg ay wax jërë ngeen jëf. door ci observateur di nga ko junjee sànq mi xëy dikk ak ci xëtam mu njëkk ci mbir yu doy waar doore wàllu politique doore luy doxal réew mi observateur xëy ñu xamal ne lu aju ci li nga xamante ne ji moo eh, ba ñu doon amal ak conseil des ministres bi ñuy wàcc diwaanu Thiès en li leer ba leer moo di Idrissa Seck ak Macky Sall démb gisee nañu journal bi nañu nuyoo bi lu jara xel la nuyoo bi ak euh, muuñ geek reetaan gi mm, l'histoire retiendra fan du moom mooy ki dem ji teextu ji kii di Macky Sall wala Aminata Touré observateur nañu moo njëkk a teeru ji Aminata Touré dem ànd ak moom ca conseil interministériel ba yemuñu ci sax ndax it dem na sax ba takkal ko lii di gallon citoyen d'honneur ci diwaanu Thiès ñu ne déetawaay ci ngoon gi mu dem teeru ji ki nga xamante ne ji moom moo di Macky Sall yéen moo di euh, ki nga xamante ne ji moom moo dem ay euh, moo dem kon teextu ji nga xam ne moom moo di lañ doon wax amul Idrissa Seck dem na teextu ji gan ñi nga xamante ji ñooy gane gouvernement bi populaire nañu la xew démb ci diwaanu Thiès mbir la moo xamante xamante ne ji démocratie dafa gën a dundaat Idrissa Seck ak lu aju ci tactique politique bi mu tekk jëm ci diggee Macky populaire xëy na ci dellu si waat gën ñu ko leeralal ci li nga xamante ne ji moo nekk ci biir journal bi enquête dina kay moom feneen la xëy génn lu aju ci Idrissa sa ak it la mu waxoon ci nganu Macky Sall gi ginnaaw bi mu dem teeru ji Aminata Touré teg ci dem jàppe ko jeu de dupe maanaam powum naxa naxa lan la ci journal bi gis jàngat bu am solo yéen kay bi di enquête dem na ci biir journal bi gën ñoo leeralal li nga xamante ne ji moom moo ci am la am ca diwaanu Thiès ne jafe-jafe li koy lijjanti la sore nañu lépp xëy nañ xayma nañu ko ci 448 milliards mi ngi nii journal bi nañu Thiès ak li mu soxla ci koppar ngir mën a suqaliku démb ba ñu noppee ci conseil interministériel ba Aminata Touré premier ministre bu Sénégal nee milliards ñeenti téeméeri milliards ak ñeent fukk ak juróom-ñett moom la cee soxla kon ngir mën a suqaliku euh, ba li nga xamante na ji moom moo di rail bi ñu soxla tegu ci rail moo di waa M23 ñi ngi ci Walf Fadjri ci def journal bi nañu M23 mouvement bi nga xamante ne ji kon mouvement citoyen la la ñu bëgg mooy nañ leen jox seen récépissé dañoo bëgg am récépissé ci koy sàkk mooy ministre intérieur ndax dañoo bëgg ñu reconnaître leen ñoom VM23 Sud Quotidien mel na kuy xëy di laaj ndax am nañu lu wax li tax yéenekaay bi di Sud Quotidien nañu en tout cas ni ñuy doxale xàmme wuñ ko di matt di ëf ndax waa M23 bari nay poñ yoo xam ne ña nga leen cee xaar yéen a kaay bi di Sud Quotidien nañu bokk na ci lu aju ci euh, liste ba woon ca Touba coow la ci am lu aju ci liste yu bari ci élection locale yi ak njëgu dund gi nga xam ne dañ ci dañ koo wàññi lépp ñu ngi ci xaar waa M23 waaye daanaka daal la ñu ciy wax kon leerul li leer ba leer moo di diwaanu Pikine moom am nañu mbër léegi sunu lamba ko wax yéen a kaay bi nañu doomu Falaay Balde ji sëll bu ndaw koye bu bàyyi ko xel moo di Ama Balde ne bu dee ci wàllu mobilisation bu dee ci wàllu chorégraphie bu dee ci wàllu euh, persévérance bu dee ci wàllu réussite Ama Balde amee na ko li tax bi gis ne daal moom Ama Balde falang na ki nga xam ne moo di Eumeu Sène teg tànk ci diwaanu euh, Pikine ki teg tànk ci diwaanu Guédiawaye di Balla Gaye 2 gis moo di open press ba am na waaye yëf yi dafa jaxasoo woon li tax mooy benn organisation amu fa moom Balla Gaye mi doon def open press bi gisaat nañu ko ci laas mu yëkkati fa ay kàddu jagleel ko kii di bombardier Balla gay nee na li Bombardier waxoon waxi boppam la ne date bi muy le huit muy le neuf muy le premier ak lu mu ci mën di doon bu ma dajee ak moom danaa ko massacrer ndax mënut a bëre ci observateur mu waxaat fa leneen moom Balla gay 2 nee na Bombardier piège di ndëgg sër xët bi ma ko laaloon ca la daanu ma daanu ba léegi ci observateur ak leneen lu doy waar Pape loolee gisandoo lay doon mu di mbir mu xaw a compliqué photo bu xaw a raglu mi ngi nii lii ñuy gis ne mi ngi ci xët u njëkk euh, benn femme la benn dame boo xam ne day wujje moom nag Tamba la dëkk waaye ñaareelam ki muy wujjeel muy ñaareel ba moo ko def jëf ju ñaaw ndax nee nañu cin la jël baxal ndox ba mu bax mu ñëw sotti ko ko Pape Thiaw lu yemul foofu ne bu yemoon foofu sax mu doy mu xaw ñu mën koo comprendre waaye seen jëkkër ci boppam moom moo ñëw jël yatam dikk fekk xale bu euh, femme bi nga xam ne dañu koo sotti ndox mu tàng ba mu nekk diggante dund ak dee jëkkër jël yat bi di leen dóor yéen kaay bi dañu loolu nag moom moo jaaxal askanu Tamba mi ngi ci observateur Pape ba suba ak jàmm. Mohamed Ndiaye. oui. xalaas. <laughs> waaw. <laughs> wala sas. <laughs> bu la ci neex waxal. lii de mooy xalaas. bu la ci neex waxal. lii daal mooy xalaas nag. ba suba ak jàmm. d' accord à demain sinon toute la journée ci euh, télé bi mën ngeen xoolaat revue de presse bi euh, ci gfm point sn voilà yàlla nañu yàlla sàmm.